jërë jëfati mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokk Talla Diakhaté xel ko moo nekk ci kàddu gi maa ngi nuyu mboolem ñeent xaaj yi dégg sunu kàddu góor ak jigéen mag ak ndaw fu ci nit nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di ñaanal sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke sunu borom yàggal ko fi ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gi ak mboolem mbokki taalibe yi. mbokk yi nag tey li sabab ma yëkkati kàddu mi ngi jëm ci jëmm joo xam ni jëmm ju baax a baax a baax la jëmm joo xam ni itteem bépp mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul jëmm joo xam ne itteem jépp mooy mbokki taalibe yi jëmm joo xam ne itteem jépp mooy doomu aadama yi kooku mooy directeur hôpital Ndamaatu fii ci Touba Mbacké di docteur Serigne Moustapha Souran di jëmm ju baax di jëmm joo xam ni euh, ak taalibe rek moo ko saf di diplôme bu mu mën a am rek da koo jël teg ko fële jënd lépp ak bi jëmm jooju nag la am euh, benn kàccoor benn saay-saay boo xam ne mën naa koo tuddee sax way fippu yëkkate ay kàddu yi dëppuwut ak ay teggin di ko jëmale ci moom muy ay kàddu yoo xam ne bi ma ko déggee dama am lu mu metti trop trop trop trop waaye yemalu ko sax ci docteur yemalu ko sax ci directeur hôpital di sëriñ Moustapha Souran yemalu ko sax ci sëriñ Moustapha Souran waaye da cee laafaale sax ki nga xam ne mooy soxna day màgg Jóob di médecin chef jiitu hôpital bii di hôpital jéemul di soxna soo xam ni ak taalib bi rek lañ xam ci moom ak jub ak bëgg njabootu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gi ñaar ñooñu nag ku yëkkati kàddu jëmale ci ñoom jàpp naa ni nit nga ko xamul dara waaye caay saay boo xam ni ñëpp dañ laa war a donoose ndaxte nag jëmm ji yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñooñu jëmm la joo xam ni fii la nekkoon ci Touba Mbacke ci Ndamaatu doon fi liggéey luubal gu mu fi luubal ak ñàkk jub gu mu fi nekkee woon moom moo tax ñu dàq ko fi ndaxte nag damay xamal ñëpp ni euh, directeur hôpital bii di Moustapha Souran jëmm la joo xam ne ak koo mën a doon boo jubee bëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul rek muy sa mën ngaa jaxas ak moom waaye saa boo noppee jub rek nag mënoo koo fréquenté ndax nit la koo xam ni noonu nga gis jëmm ji rek noonu la mel mu nit koo xam ni sëñ bi rek moo ko saf jëmm jooju nag li ñu boole damaa bokk ci junniy dong yi nekkoon xel koom doon ca kenn yàgg a gis fu mu jaar ak Serigne Saliou Mbacké mu fekk Serigne Saliou Mbacké ci daara ju ne waaye fekk mbokki donga yi ci daara ju ne itam jépp mooy fépp mu gis nit mu ne am ay jafe-jafe moo xam ngay ab donga moo xam foo mën a nekk ak foo mën a dëkk lijjantiwul euh, fa nga bokk ak ka nga doon li muy lijjanti mooy jëmmi doomu aadama ji nga doon ba lépp lu man ci say itérit dana ca dem kemtalaay kàttanam kon jëmm jooju jàpp naa ne képp ku yëkkate ay kàddu yu dëppoo ay tegg di ko jëmale ci moom bu déggee kàddu ya danañ jóg wax ci suñ xalaat wax ci leen xam waaye nag ñoo xam ki yëkkati ay kàdd bu baax a baax a baax di Modou Ndiaye ñu gën koo xam ci Mamadou Ndiaye mu nekkoon foofu ci hôpital Ndamaatu euh, docteur Soran defal ko lu ne waaye ak ñàkk jubam moom moo tax ñu dàq ko ci hôpital ba ak luubal gu mu fa daan luubal dem na sax ba garab yi nga xam ni euh, malaat yi dañ ko daan jëfandikoo mu ko daan jël euh, di ci def ay luubal ba tax ñu dàq ko ci hôpital ba ban ko fa dàqeet mu dem defaat gëneen luubal ci xaalis bu takkoo takku ay millions yu baree bari mu luubal ko bañ jàpp ko tëj ko ci kaso bi ba mu génnee war a fay nag ci la génne daw ni def ko bu làqatukaay foofee ca naaree foofee nag lay taxaw di def ay live nee na di attaqué ay nit ñu baax di attaqué ay gor di santas ay doomu aadama ñi mu ko def bari na waaye ñi mu ko mujj def ki mu ko mujj def mooy docteur Souran mii di directeur hôpital Ndamatou ak soxna Ndeye Maguette Diop médecin chef jiite hôpital Jéemul di ñaari jëmm yoo xam ni Euh, boo jëlee sa micro tey jii def micro trottoir fii ci Touba Mbacké li xam ci ñoom rek moo jub ak jubal ak dëggu ak ak bi kon jàpp naa ni euh, gor ñu seet ñooñu nit ñi yiw ñooñu képp ku yëkkati kàddu di jëmale ci ñoom da ngay nit ko alku da ngay nit ko xani motoo sax tontu waaye nag olof day faral di wax ni ku noppi dangaa ngaa dëggal te leeral dafa am solo loolu moo tax tey jii ma tiim micro bi ma ko dégloo xam ni kii li muy wax dara du ci dëgg te ñii muy waxal duñ ay nawleem ndax ñii. sëriñ Saliou Mbacke di a gërëm sëriñ Alxaaji Baara Mbacke gërëm leen sëriñ Sidi Moxtaar gërëm leen sëriñ xaa mii fi nekkal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gërëm leen ba docteur Soran mii eh, jiite hôpital Ndamatou sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke ci ak baaxam ci ak bëgg lu baax ci fonk doomu aadama ci xam nit ku dëggu jël ko joxaat ko hôpital bii di hôpitalu Cheikh Ahmadul Xadim di hôpital bés bii nekk Touba jàpp naa ni sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke kilifa gu toll noonu képp kum jël ba dénk la mbir moo xam ne taalibi sëñ Tuubaa yi ñoo ko moom sëñ Tuubaa ko moom am na ci yow yaakaar te yaakaar jooju yàlla bu mu tas ci barkeb Serigne Saliou Mbacké Mamadou Ndiaye nag di jëmm joo xam ne jubul ndax moom murtani gee mu nekk sax def ko barabu làqutukaay jabaram moo ko fa muy koo xam ne barab bi mu jigee senegal gi def fi ak luubal ba daw làqutu ji murtani fa mu doon liggéeyee di fa jaay ay garab dañ ko mujj dàqaat foofee ndax luubal bu mu fa doon luubal ba tax boo gisee live bi sax ci biir oto lay nekk def live te fi mu nekk sa xelam kon jub rek moo am solo am na doomu aadama yu nekk ci kaw suuf yoo xam ne jëfal nañ suñu borom jëf ju mucc ayib yoo xam ne saa boo yëkkatee kàddu gu dëppoo ak ay teggin jëmale ko ci ñoom loraa ngay lay doon ci yow te dëkk bu tedd bii di Touba Mbacke képp ku fi nekk nekk fi ak jubari sëriñ bi ci boppam moom moo lay génnal boppam kon nag li ma jàpp mooy Modou njaay mii di Mamadou njaay sëriñ Touba Xaadim Rasul moo ko génne dëkk bi ndaxte jubari gu mu nekk woon ndax mënoo nekk ci hôpital bi nga xam ni sëriñ moom mbokk taalibe yi dafa fa dem guddi bëccëg subaa ngoon nga nekk fa ak luubal ba ki jiitu hôpital bi maslaak yooyu ñu war ci ab ruq wax ak yow yedd la guddi bëccëg subaa ngoon nga dem ba euh, yëf yi nga dem ba mel ni ko ci dërkiis dem ba mel ni dañ laa liggéey ngir luubal yooyu luubal ci hôpital bi ba ci kàmm ñu jël la génn la bi nga dem di santas ay nit ngir bëgg a jubbawaat ak doctor Souran mu lay xamal ni man sama alali bopp de lu neex waaye mën na cee def moom docteur waaye lii nga xam dañ ma koo dénk mu alali Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moom du ma ci may nit lu toll ni tarafatal xay ni ma ci baal nit lu toll ni tarafatal xay ni te loolu moom lay jëfe guddeeg bëccëg suba ngoon soxna Ndeye màgget mii tamit muy attaqué di jëmm joo xam ne képp kuy soxna ci dëkk bi tey jii boo jëluñ micro wër ci dëkk bi def micro trottoir kàddu yi benn kàddu lay doon mooy nit ku yiw la nit ku baax la nit ku maandu la nit ku mën a taxaw ci doomu aadama yi la kon bu yëkkatee ay jëmale ko ci ñaar ñii di sëriñ Moustapha Souran ak soxna day Maguette Diop nit la koo xam ni euh, tooj na te da xam ni nag ñi nga tooñ ay boromi njaboot lan ay boromi soppe lan ay nit lañ yoo xam dañ leen ràññee ci liggéey sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ci wàllu médecine fii ci dëkk bu tedd bi Touba boo leen bëggee boo bëggee yàq seen der yaa ci yàqoo ndax ay nit lañ yoo xam ne lu baax lañ xam ci ñoom ak jub lañ xam ci ñoom ak maandu lan xam ci ñoom yow nag ak jubadi ak ñàkk tawfeex moo tax ñu génn la dëkk bii nga dem ñu tëj la ci kaso bi nga génnaat daw dem murtani nekk fa nga doon liggéey sax ak njóoj njaaj ndax li Sénégal di muñule ab naar du ko mën a muñule ba nga fa nekkee di liggéey di jaay ñu jàpp ni kat xëy na da nga soppeeku nga def ak luubal ban dàq la ci place ba nga nekkoon fu ñu toll sa jabar mooy réer foofu ci murtani loolee rek doy na aw naqar ak tiis li la metti nag docteur Sang tegula ko li la metti Ndeye Maguette tegula ko yaa ko teg sa bopp nit da ngay jub nit boo jubul mënoo nekk fenn fa gën a ci àddina boo fa nekkoon tamit ah danga nekk ci jafe-jafe ndax jub rek moo am solo say dossiers yi nag yor nañ ko lii benn alerte la boo xam ma ne woon naa ko def yàgg nga def ay vidéo di ko jëmale ci docteur Souran di ko jëmale ci soxna Ndeye Maguette waaye loolu moom day dakk lii ab alerte la gis naa ci biir vidéo bi nag ndax wàllu communication maîtrisé woo ko gis naa ci biir vidéo bi nga yëkkate ay kàddu jël ay tuuma teg ko ci ay kilifa yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu médecine ci région Diourbel ci département Bambey fu nekk tudd nga ko lim ko ba tudd ay syndicaliste fii ci Touba Mbacké genn kàddu moo fee muy kàddu sëriñ bi bu fekkee da ngaa nekk ci ay tappale wala nga nekk ci ay manipulation bu yeboo nga jël ko yaa koo ko àndal teg ko fële te xam ne manipulation yooyu du jàll. jamono ji képp ku jubul bu yeboo nga jéem a jub te xam ne jub rek mooy lu am solo jël nga ay kàddu nag jot a tuumaal sax ay kilifa yëngu ci wàllu médecine eh, ci région Diourbel kon kilifa yooyu mu jot tuumaal ci vidéo bi nan ko déglu buñ ko dégluwul su fekkee dégluwul ko ne leen ko dégtal ñu déglu ko. buñ ko dégluwul sax bu pare laay wax liñ ci war a leeral ñu génn leeral ko ndax nit buñ la tuumaalee dangay ngay génn dindi tuuma ja ban xam ne tuuma ja laa la wëcc dara lii nag insha allahu danañ ko lijjanti ndax dangaa tooñ kilifa tooñ boromu njaboot te na nga xam ne Mauritanie googu nga jàpp làqatukaay du barabu làqatukaay ndax Mauritanie ak Sénégal benn la tooñ nga nag tooñ goo xam ni loo ci góobee na ko gar lii nag benn alerte la boo xam ne dama koy def te na nga xam nag lépp lu la jaral rek lim ñu lim ñu jaral moo ko ëpp fop kenn laa nag ñi naqari ma jóg yëkkati kàddu waaye ay junni junni nit ñu ngi ci biir Touba gi mu naqar leen te yëkkatiwuñ kàddu wax maa ngi ziare ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaanal docteur euh, Souran Serigne Moustapha Souran liggéey bu tedd bii nga xam ni mun Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dolli na ko ci ab liggéeyam muy hôpital bu mag bii nga xam ni hôpital bu am solo la ci histoire senegal muy hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim bii ñi ngi ñaan suñu borom may ko ci ndam euh, docteur Soxna Ndeye Maguette Diop tamit médecin chef ñi ngi ñaan suñu borom gën koo may ndam gën koo kàttanal waaye saay-saay bii nga xam ne mooy Modou Ndiaye di Mamadou njaay ñi ngi ñaan suñu borom soppi ko ndaxte nag yoon yu mu jëm baaxul ndax olof Ndiaye day faral di wax ne kuy naaw say laax boobu fa nga jëm di sori te moom mi di yoon yu mu jëm képp kuy mbokkam bu yóbbu nga tiital ko te xam ne mi ngi tooñ ay nit di ay kilifa di tooñ ay gor yoo xam ne ay boroomi njaboot lan te lépp lu mu ko jaral rek jaral nañu kon ñu ngi lay xamal yoon wi nga jël baaxul yoon wi nga jël baaxul. li ma ci tegaat nag mooy moom Modou Ndiaye mii nag euh, sëriñ Moustapha Sourang mii muy attaqué ak soxna Ndeye Maguette Diop duñ say nawle duñ say morom te vidéo bi sax leer na ma ne jamono ji may àddu déglooguñ ko bàyyiwuñ ci xel sax ndax ñoom lee lañ ñor ak la leen itteel nga ci waaye ma lay xamal rek euh, sëriñ Moustapha Sourang mii ngay attaqué ay maamam jëf nañ ci yoon loo xam ne leer na ma ne sama maam jëfu ko ci yoon wi ndax ma sorong sorong de ku ne xam na ni jàmbaar la ci yoon wi. ndax euh, jamonoom ak sëriñ mu Moustapha Mbacke yàlla na suñu borom yokk ay leeram euh, le 4 mars 1932 am na jëf ju am solo ju maamam jëf ci jumaa ji mu jëf joo xam ne histoire du ko fàtte mukk ndax dafa miraas ay këram yëpp jaay ko ngir def ko ci jumaa ji kon ku mel noonu tey bu am bu sëtam nekk ci dëkk bi ku mel noonu tey bu sëtam nekk ci dëkk bi ah di fi liggéey liggéey bu am solo ci wàllu médecine bi mu jàngee ba pare diplôme yëpp da ko jot teg ko ni bépp diplôme bu may am rek fas naa ci ne liggéey sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te loola ca la nekk ca jamonoy sëriñ Saalihu Mbàkke ca jamonoy sëriñ Alxaaji Baara ca jamonoy sëriñ Sidi Muxtaar ba suñ joon yàlla tey di jamonoy sëriñ Muntaxa Basiiru muy liggéey liggéey bu am solo ci dëkk bi kon kooku jàpp naa ni ah du gan ci dëkk bi de jàpp naa ni la génn ci dëkk bi de ndax yow jàpp naa sax Sénégal doo fi gaaw a tegaat sa tànk ndax fi ne nii rek boo ne woon buy suba ñu lay ndax luubal nga fi yoo xam ne ay plainte ñu ngi la fiy xaar kon nag soppeekul te xam yoon yu nga jël baaxul moo gën ci yow ndax nit da nga tooñ koo xam ne da nga laal ku nekk waaye da laal ñoo xam ne ay laal laake lan te nag fi mu toll yaa ngi soog a laal laal laake nag li la xamal nag say dossier nag ñu ngeeg moom lii benn alerte rek boo xam ne doonoon ko def waaye yor nañ say dossier yoo xam ni boo xaman ni yor nañ ko tey ji jàpp naa ne doo lekk doonal jub rek moo am solo ñi ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal sëriñ Moustapha Souran suñu borom gën koo kàttanal di ñaanal soxna Ndeye Maguette di siyaare mboolem rek mbokk moo xam liggéey Sëriñ Tuubaa moo sa yitte ñu ngi ñaan suñu borom gën laa kàttanal bu baax a baax a baax taala jaxate xel ko mu nekkoon ci kàddu gi mbokk yi jërë ngeen jëf